asalaamaaleykum mbokk yi tey la ajjuma juróom benn fan ci weeru tamxarit atum junne ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent yemoo ko ajjuma juróomi fan ci weeru ut atum ñaari junne ak ñaar fukk ak ñaar tënkum xibaari bis bi ci Ali Imran TV li ci gën a fés. danu koy door rek kuréel gi ñu dénk wàññi gi ñeel wett yi ñoom nag joxe nañu njuree ne néggandiku yi ni ki démb waa bennoo nag ñoo jiitu ak juróom ñett fukki toogook ñaar yu ñu amu ca ngombulaan ga waa Yewwi ak waa Wallu nag bu ñu boolee am nañu juróom ñett fukki toogu ñoom ca ngombulaan ga bokk gis-gis ak waa aar senegal ak les serviteurs bu Pape Djibril Fall ñoom ñooñeen nag ku ca nekk am na gen benn toogu ca ngombulaan ga kon daal waa kujj gi bu ñu boolee seeni toogu day daal di dem ci juróom-ñett fukki toogu ak ñett bu boobaa nag eh, ñii di waa bennoo ñoom dañuy néew doole foofee ca ngombulaan ga waaye nag lay wax ja mooy ndax ñoom waa kujj gi ñëpp danañu booloo wala waa bennoo dina mën a jël eh, eh, benn jàmbur ci kujj gi ngir rek ñoom mën mottali juróom-ñett fukki jàmbur ak ñett ngir nag ñu wéy di am seen doole foofee ca ngombulaan ga dañuy des sax ci njuréef yooyu ndax euh, Déthié Fall moom xamle na ni daal euh, loole ñu génnee euh, ñoom waa kuréel googu daal ñoom ànduñu ci benn yoon te it danañu kalaame ji foofee ca Sénat ndax daal dañoo seetlu ay wagajaane yu bari foofee ca diwaan bu Fuuta Déthié Fall nag teg ca ni daal njiitum réew mi moom amatul doole ci réew mi benn yoon ndax mboolem luubal yi ñu amal teewul nag juróom-ñett fukk ak ñaari toogu rek la am kii nag di Amadou Sall Fall moom nag bokk ci bennoo di tontu Déthié Fall di wax ni daal kenn mënalu la sàcc kenn mënatu la sàcc nag ay wét fii ci réew mi li gën daal mooy ñoom nañu nangu te xam ni daal ku nekk la réew mi jox rekk nga am nu wëyal wax ci njiitum réew mi ma ki sàll moom nag torlu na ak déggoo digganteem ak way fippu ya ca Casamance maanaam daal am na nu déggoo ci wér ngànnaay bàyyi nag xeex bi loolee nag ma nga doon amee ca réewum gine Bissau moom njiitu réew mi Macky Sall nag moo ko xamle ci xëtu tiwitam mbokk yi ñu daaneele rek ak tàggat yaram wax nag ci lu soxal basket coupe Afrique bi ñeel nag ñi am lu yées fukk ak juróom ñetti at Sénégal moom mu ngi ci kippaango bokk ko nag ak Madagascar ak Algérie ak Bénin moom Sénégal moome sax tey jii lay door jongante yi digganteem ak Algérie ñu wax ci coupé lu soxal tugal foofe nag ca Allemagne tey jii ñoom lañuy ñuy dooraat jongante yi Bayern na nag war cee dajeek Francfort kon nag ñu cay xaar doomi Sénégal euh, bii di Sadio Mané te di ko ñaanal nag suñu borom defal ko ca ndam Eh, ca France ñoom itam tey jii la ñuy dooraat ñoom itam eh, Lyonnais mooy daje ak Ajaccio eh, jongante boobee tey lay am waa Angleterre it dana nu door ñoom itam nikki tey Crystal Palace moo cay dajeek Arsenal mbokk yi lii mooy li fi ci tënkum xibaari bis bi nu amoon mbég mu rëy doon leen ko jottali ci Ali Imran TV te di leen dig daje ëllëg ndem soog na yàlla